yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago bu Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal dangay def def 3w point seen affiche point comme nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan oui delloo ziar bu wér. sant nañu baax alhamdulilah. nouvelle bi nga xamante yëg ngeen ko ci làmb muy diggante ma Modou Lo blessure bi Modou Lo am yéen waa Pikine en tant que ñi jege Ama Balde ban yëg-yëg ngeen ci am. non dafa metti li dafa metti dafa metti dafa ñaaw mais nag wiri wiri jaari ndaar yàgg dinañ daje actuellement ni moom wax ci jaru muy bëri sax parce que booy wax da ngay wax comme dafa la ñeme mais Modou ñemewul Ama. Hmm. waaw ñàkk a ñeme Ama affaire bi ba ba léegi boo xoolee ay gesam ni muy réagir ni muy defee nga xam ne kii parewul sax pour bëre. Mhm. waaw mais nag bis dina jot amaana dinañ bëre bu jotee rek dina yomb incha allah. woon Ama Balde est-ce que dina jël Ama Balde pour may ko sens comme ni ñu wax mu ne dafa teg titre roi des arènes ngir bëgg a dugg Pikine bëre ak Ama Balde. mais nit di ko jël te doo ko ñeme loolu moo si nekk moom jël na ko mais ñemewu ko xool na xoolaat xam ne amul fu muy jaar moo tax muy kere yëpp mais yàgg-yàgg dinañ daje mais waroon na gore nag quoi bu góor la nekk jàmbaar góor parce que sëñ Fallou bu damoon sax dina bëre ak Ama le ak fi affaire yi jaar yëpp ak li fi am yëpp. mais nag yàlla baax na amaam bu ñu a daje nañ daje. blessure bi loo ma nag moo tax mënu ma si wax man du ma si détaillé. gëm nga ne blessure la wala da ngaa gëm ni. jàpp ma ne a jekk a jekk laa ko jàppee pareegul quoi. pareegul waaw. boo xoolee keroog scientifique boo xam ne parewul te retraite bu bëreewul nga gis lu ñaaw loo musul gis si àdduna mais dinañ daje yàlla baax na booy bi dafa doon toroxal de. booy ah, bi dafa doon toroxal de barke yeneen bi ku am conseil la. Sil Sil lan moo tax nga ni Modou Lo ku am conseil la da jàpp ni Modou Ama Baldé moo jëkk ci làmb. waaw loolu loolu kay ngeen waxatu ko ñoo ko dàq bëree ñoo ko ëpp doole te ñun la yàlla faral waaw ah. ah, waaye dina bëri de. bëgg bëri bëri. ñàkk bëgg bëri par force te su te su bëriwul maa koy fekk ba këram loqatu ko noor kaay bëri. combat fii ñaata at ngeen ko app yéen waa. fii ba 40 ans. 40 ans fii ba 40 ans dañuy bëre ak moom. ni da ngay gooye awa ah, bi ñu bëre Papa Sow deux semaines la am blessure ci loxo bi ñëpp wax laamu ji mu ne laamu ji du yàqu ñu du ma bàyyi ma fenn kabiyaas mu ne ñu wax ba sonn ñu ne ko mu ni leen damay bëre li ma am jël ñu bàyyi ko mu bëre yàlla may ko ndam mais lenn man soxor laa ko jàppee moo la xam na ma bu baax ah, dama koy fekk ci dama koy fekk di ko mbugal dama ko may dara yow da nga iñaan da nga soxor waaye barke yërënti bi roi bi sama papa ji da koy jël. roi bi yéene wuñ ko da dafa jaaxle fexe ah, bu ne fexe yi ngay def ci woo yeeg lépp si na waaye déggoom waaye xam nga ama ñu ñuy àndal ñu ñun ki ñuy moo ñu gënal suñu bakkan ñun kii moo ñu gënal milliard moo ñu gënal kër e ndam rek lañ soxla te di nga daanu. bro maa de. waaw delloo ziar. daa mel ni tey waa Pikine seen xol seetlu parce que sa gan gi seer la li muy li muy sangoo diñoowu ko li sangoo xeeñu ko. waaw li ñuy xeeñ boobu jiwoowu ko dëgg-dëgg góore yàlla affaire a nga war a gore sax xool nit ñi combat bi li jaral mu des treize jours nga naan da ngay jéem a sampaay affaire Modou li muy waree na ko na ko na ko dëggal quoi. da nga dafa ragal booy. non xam nga des fois nga jël benn affaire ci erreur da koo jël par erreur te booy bi mel guddi guddi guddi guddi guddi roi bi day fanaan si billaahi wallaahi Modou Lo day bëre nag si nii wala si naa. war a Modou Lo leneen waaw dëgg la see nag nu muy bëre. noonu la demee nag moom ko seen nekku fii yàlla am na beneen yàpp bu géej yi te Modou Lo du géej du dara. dañu dimbali Modou Lo dimbaluñu ko ñun noonu la fa demee ama rek barki si noo def. maa ngi fi maa ngi am jàmm maa ngi man la maire 10 ans bi ànd ak Mbaye ak Loum. waaw moo ñëw fekk si la fii nga yëg nouvelle bi nga xamante ne làmb yëpp yëg nañ ko muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu waroon bëre le treize ñu jékki-jékki dégg ni Modou Lo am na blessure ba komba bi mënul am ba yëg-yëg nga ci am ak nan nan la lay def. waaw am nañu naqari rek. puisque préparer combat dafa metti te Ama ba mu toogee ba léegi di xaar combat bi dafa yàgg. waaw blessure nag ñun wóoruñu ndax am na wala amul. mais li mu wax rek loolu lañ ko mën a téyel mais daal am nañu lu ñu naqari bu ñu sañoon kombaa bi am dafa mel ni Modou dafa daw deuxième. Ah, waaw dafa daw deuxième ah dafa daw deuxième nag moom dañ ne daa ngoyaalu ci roi bi bañ ko joxe day bañ mu ñëw pikin waaye dina ñëw pikin incha allah rabi roi bi dina ñëw pikin. nga wax Ama Balde. Ama mu gën a góorgóorlu rek yokk entraînement yi. te xam ne Modou saa yu paree rek dina fekk moom mu pare waaw Modou moom ñu koy xaar fu mu jaar bëre ku jël avance foo nga bëre waaw lekk avance foo nga bëre. dina bëre ama ku ko mbéj cinq mu koj la timis. ku ko mbéj cinq mu koj la timis. merci beaucoup. maa ngi fi rek. maa ngi am jàmm maa ngi am jàmm baax. maa jaay café fii. maa jaay ko ñu Ama Baldé ba xam am naa fi café Modou laay man du ma jaay café Modou xalaatuma ko sax. laay deret buy daw si Baldé Baldé bi mooy daw si man. waaw. tey nan bi bi ñu waroon nañu laale ñu Lo blessé na lan nga ah, man de gëw ko wax dëgg yàlla. ba fii ma toog nii gëw ne Modou dafa blessé. waaw. nga ni kon le treize dañuy bëri. moo war a am sax loolu mooy li war a am. mais le treize Modou Lo bëri ndax dafa gaañu dafa am. gaañu wax ñun gisuñu ko de si lu mu wax parce que munoo toog di def say entraînement ñu ne combat des na 17 jours nga ne danga nga blessé wu loolu c'est impossible loolu mënul nekk loolu mënul nekk. Modou Lo daal ama yee bi moo koy déranger moo koy déranger mooy li muy bañ. loolu moo koy loolu moo koy déranger. du ngeen du du dégg amul ama yee. ah ça dépend rek de bu buggee dégg Modou Lo le treize day ñëw mais bu buggee dégg Kine Lo nag <laughs> mun na ko annuler ah. waaw. yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg a seetaan gala bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal da ngay def 3W e point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan